yu opposition bi bañoon lànk ni du ñu dem wala sax naruñoo dem euh, daje nañu nag euh, def coalition bu wala boog nara a def intercoalition bu mag wala alliance bu mag a mag a mag boo xam ni Assane Mesere APR ak PDS mi ñu bari foogoon ni du ñu mas a ànd ndax seen xeexoo seen seen ŋaayoo ci diiran fukki at ak ñaar euh, ñoom mujj nañu lënkaloo ñu ngi ànd wax naa la ko léegi moo sabab ku mel ni Amadou Diallo Wakaam ak lu toll ci mbooloom bu def 400 personnes nee nañu pëccët génn nañu. Euh, ci euh, euh, loolu yi nee nañu daal ànduñu ci te bu fekkee ne PDS dafa foncé ci mbir ñoom dañuy taxawee nële dem jàppale Jomaay loolu yi lañ ko waxee bi ci des itamit mooy Amadou Ba ak parti socialist ñoom ñooy ànd mu des nag ci biir biir ñoom Bougane nag ñoom kii fan la ñu jëm ñu joxale ci itam Ousmane Sonko moom it nee na parti Pastef dafay demal boppam du dem ci coalition mm, beneen bi mooy day bañ la ko daloon dalaat ko mooy fal ay nit ba pare ñu wor la. Hmm. Hmm. waa am na solo mm-hmm. son bu mm-hmm. bu fekkee si diggante waa APR yi ak waa PDS mm-hmm. xam nga ñoom dañee masa doon benn ñoom waaw ndax président Macky Sall nee nañu doom la si président Abdoulaye Wade mu def léppam ñu génn mais nunguwuñ ko mu ñu koo nangu xeexoo rek lañ masa lañ masa a kii moo tax ànd bi buñ ko àndeet duñ si am ndam ah oui pourquoi. bu ñu ko àndee duñ si am ndam ndax si problème mu député yi lañuy dinañ am problème mu. teg député yi góor ak góor ak jigéen. teg góor teg jigéen dañ si am problème bu ñu noppee dinañ am problème si bu yàlla dogalee ñu góorgóorlu si ba jaay dinañ am problème si séddoo député yi moom. far force dañuy am problème ndax mënuñoo ànd. ñoom ndax ñoom ñoo bokk ñoo ah, bokk. intérêt ñoom ñaar yàgg nañu. waaw dama ne waaye dañoo ñàkk mën a ànd tax président Macky Sall génnoon. ok ba ñoom demoon nañ wuy ji président Macky Sall mais ñu ko wuy ji woon ñëpp ñàkk pexe la rek kaay sama kër wala nga dem si kaso bi lu la gën a nga ne ko sa kër te assemblée leen boole woon de ñoom ñëpp ensemble leen boole woon kon ensemble ba tax Macky Sall génn ñu xaajaloo ensemble mun leen a boolewaat pour ñu àndaat joxe benn kon ànd boobu moom àndum naxaata dëgg dëgg dëgg dëgg la mhm. PDS ginnaaw àndoon na président Diomaye gii ñu jàppale woon ko mhm. mënoon nañoo diglu foofa jéem faa ngoy ñooñu xaa déggoo li ma la wax voilà loolu nga wax nag waaw loolu xaaral ba la nga cee ñëw. Hmm. léegi itam Amadou Ba ak waa ak socialiste yi. Hmm. ñoo lëkkaloo. waaw ñooñu moom ay Amadou Ba ak ay socialiste yeeg yooyu yëpp moom xam naa ne fi mu toll nii si ay waxtaan lañ toll ak làmbatante rek ba xam nan la ñuy mujjee mais man la diggante bi waxtaan wu suudee wu waxee mën nañoo doon famille. Hmm. mën nañoo ànd am mënu fee am xaju fi. kon fi nekk nii da ngay nañ teg nañ teg li nañ teg li dong la te loolu bu amee dina am ñu ci perte ndax kenn deseetu ci ay nit. ñan ñoo ci perte. ñoom ñëpp ñan. ñoom ñëpp mën nañoo perte. socialiste yi Assane dese na ay nit. Hmm? socialiste ñaan lañ dese. mais parti la parti kay am na ay nit Assane. koo jiite. Assane man dama lay yow. daal ma laaj donc man soxlawul ku ko jiite mais li ma lay wax. mooy socialiste yi. <laughs> mais lëkkaloo nañ ak moom. socialiste ku ko la si desegus néew ñenn ñi dem nañ si xalifa Sall ñenn ñaa nga fay kii yeeg nu mu tuddati. Khalifa moom du du gis gis nañ ko ko Amadou Ba. Khalifa nuyoo. moo tax fi ne li hélas wax rek dañuy wër ñoom ñu di nuyonteeg waxtaan rek ku si am xew ñoom ñu ñëw ku si organiser ko war a rek ñëpp ñëw nuyoo si waxtaan jëlante numéro dem. jëlante waaw. sensé dañoo sensé ay numéro ñu jëlante numéro yi bees yi daal di demaat maam fi ne nii ñoom ñëpp dañuy windeelu rek il faut ñu bàyyi leen bañ miir ba taxaw. doog a teg lu lu lu tegu. Mhm. voilà sëriñ baat dem na ci Amadou Ba. waaw suñu sëriñ baat am Amadou Ba la am moo tax euh, ba mu ne day jóge si Amadou Ba yooyu. man loolu xawoon maa metti hmm. ci Abdou Bakk Baar ndax moom si Amadou Ba la bokkoon. si Amadou Ba la bokkoon li may ànd ak yow xam naa doo gañe. waaw xam ne du gañe pare mu ànd ak moom. waaw mais ba mu ko waxee ànduma sa woon fi mu ne nii lii mu def laa ànd ak moom. Hmm. te nit noonu la war waroon ba mu jógee si élection yi dem ànd ak moom ñu gañe leen dafa war nu continuer ànd ak amadu Ba. ba lii ñëw ñu continuer ñu xam ne kat kii macha allah. mais mënoo ànd ak moom mu daanu nga ñëw ñëwaat fii défendre ñi bàyyiwaat leen demaat si Amadou Ba yooyu. loolu day xaw a doy waar politique dana metti lool waaye nag dina ngay continuer rek di naxante ndànk-ndànk te di ko teg si yoon. ba ba ngay àgg fa nga jëm. d'accord voilà. léegi nag Ousmane Sonko moom nee na fas yéene wu ñëw ubbi ay coalition hmm. dañuy dem ak seen bannière Pastef ku ñëw hmm. ku ñëw dugg baax na bu ñu paree mën a contrôler seeni i ndax li leen fi daloon du leen dalaat. Hmm. mooy ay waranteeg def yëf. waaw loolu loolu laa tax yeewi askan wi laa toog fii wax ko fi émission laa ko waxee. waaw. Ah. laataa yeewi askan wi laa naan Ousmane sunkoon a demal boppam te bàyyi coalition gi ak ñii muy jël. Mhm. laata élection yi am député yi assemblée bi am ak la mairie yeeg yëpp la naa ko naan na demal boppam partem am nañ doole te nit ñi gëm nañu leen. Mhm. kon nañ demal boppam. kon nag tey jii bu ñëwee di demal boppam duñ man lu dul encouragé ko si bu baax a baax te wax ak ñi nga xamante ni ñoom la war a àndal. dañ bokk Pastef. Mhm. muy ñan. muy ñi bokk si régions yi ak capital beeg yëpp bu fekkee ni. ensemble gee yow leer na liggéey doo nga la fay yóbbu. liggéey kese liggéey sam réew jub jubal jubbanti kon xeexoo beeg xastante beeg xuloo bi jëru ko ñoom waa Pastef. dañ koo def dañ koy def ñoom ñëpp. fan la kañ la lool naa leen Bakel Grand Yoff gi fu ne gis naa leen. ñuy xeex waaw ñuy xuloo ko xaste naan kii du dem bu kii demee dàngam kii ay dem. Ah ñun ki waaw. ah oui loolu Mbacke département bu Mbacke rek cent député lañ tànn nañ cent personnes te xam nañ ne mënuñ mënut a nekk. cent cent ñoo déposé nii dañuy ñoom député yëpp cent. ñoom Diop Taïf ñoom Diop Taïf cent personnes. luy loolu Assane. comme ça ñi nga xam ne dañuy dem ensemble. waaw xam naa mais loolu lu mën a nekkee. moo tax ma ni leen il faut que. nga góor di tax a dem. ah non xam nga département bu nekk maam fenn fu nekk ñoom. Ah, yaay dañuy dugal waaw yow yaay xool ñiy dem foofu. ñoom ñoom bu ñu dajaloo ñëw après ñoom ñu xool ñi ciy dem. Mhm. il am ñoo xamante ni ñooy taxaw waranteeru gis nga modab modab. modab fii départ Dakar bi ñu leen liste nationale dañu leen laaj quatre personnes. Mhm. mais ñoom ñoo tànn ñaari ñu góor ak ñaari jigéen joxe pare ca. waaw loolu de am na solo moom. ñi tànn ñi tànn ñoom demuñu. Hmm. ñi tànn demuñu gox ñenn ñu nekk ginnaaw Ousmane Sonko ni mu ko organisé dañuy diggante fu nekk nañu tànn andil ñu mais yow toog nga tànn nañ nit boo tànn bu ñu tànnee nit ko xam àndoo caat nga xamante ni loolu la yàlla dogal. kii day hmm. liggéey réew mi. Hmm. mais dangay gis ñoo xamante ni tànnuñu leen ñu jóg di di di di xas ay nit di dal ci kaw ay nit gis naa waa Garaaf ñuy dal ci kaw Abbas Fall naan war na tànn. Ah ñu kii grand ab ab groupe la daal gis naa ne ñu naan ñun kii lañ àndal ñun kee lañ àndal comme si man di tànn même bu tànnoon ko bokkul Pastef mhm. te dëkk Grand Yoff te bokkul Pastef de mhm. mais neen xamal ni liggéeyal Grand Yoff moo tax mu tànn na xam ni bu ñëwee foofaat la mu fay def mooy la la fa parti ba teg pour ñu jubbanti réew mi mhm. mais tey ji tànn ñu ma rek nga jóg dajale say nit ñuy xuloo di xaste loolu amul njariñ waaw day mel ni sa bopp la yitteel Pastef li Sëñ Seex Coro wax rek nee na li fii ak Pastef wërta am démocratie suñu Cheikh Thioro nee na ay affaire démocratie ay affaire Pastef dañoo war ne Ousmane Sonko yaay parti bi doxalal loo wax lañ déglu waaw boo boo nee waw na ñu ne waw na boo ne tooy na xam nañ ah, nga boo nit ki kat kii du la dugal ci lu bon hmm. du yàq du def nangam kooku kay boo ko joxee kàddu gi ni ko defal mu mais nag mënuñu ni ko ñoon yoo la ba pare mu teg xamante ni moom la jox liggéey bi te ko comme tànn ñu ne ko anduñu si kooku tànnal kee hmm. loolu mënta nekk kuñ tànn da nga ni liggéey sam du sa wërsëg du liggéeyum nday du dara li dañ lay liggéeyloo kuñ fi tànn pour ensemble du liggéeyum nday du wërsëg du dara da ngay dem nga liggéeyi kese xamoon na di nga ko am de sa nday da koo liggéey teyit li hmm. kii bu am bu am solo boo ñëwee ñu fay la su surne hmm. nga dem ñibbi plénière plénière bu am fa yóbbu jëndal ko sa bopp te bul buñ la jëndal oto buñ la jox bon essence buñ la wutal appartement buñ la jox téléphone buñ la jox dara nañ la jox sa salaire la say def nag yaa ko xam. macha allah. Mhm. loolu lu am solo la alaaji mhm. alliance bii ma la limal génneel naa la ay fenêtre yoo xam ne ku ci nekk ànd nga defe naa ne sax ñi ngi xaar daal ku mel ni pur ak ñoom décceeg ñu ni mel di gisaguñ leen ñu yëngu waaye jàpp nañu daal fii ak 10 jours ñuy déposé liste yi nañ xam ñan ak ñan waaye daal am na ñoo xam ne joxante nañ bopp ci jamono ji waaw xam nga système bi musuñoo réeroo réeroo c'est que suñu problème mooy ñun dañoo defe ne ay parti diw ay tour doo nga fi ne mais doxalin yi après ñoom ñëpp dañ ci retrouver wu même ñi nekk ci opposition loolu mooy doxalinu système maanaam yëf yi day jaar ci suuf ñu am ñeneen noo xamante ne bi noonu la ñuy graissé yenn yeeg yooyu comprendre day am yeneen di mbir yoo xamante ne bi day am mais ñenn ñi dinañ taxaw fipp ñu ne way ñi ñooy opposition maanaam ci jeu lañ nekkoon rek ñun dañ doon seetaan benn film boo xam ne ñoom dañuy jóg dekk ay acteurs di jouer moo tax it saa yu leen invité waan bu ñu paree bu ñu defee plateau bu mu saf sap ba nga nit ñii de dañuy léegi dóorante am bu ñu paree dóorante te tàcc nuyoo. jëlantey hmm. numéro dem tàppante noonu hmm. moom moo ne mooy système bi. c'est mais bu ñu nekkee ci média yi dañuy jouer rôle. comprendre nga. Mhm. léeg nga dal ci kaw nit. wax wax wax wax bu laan demee bureau ngay añee ji. c'est comprendre nga. loolu mooy système ak yow loolu mooy système bi loolu mooy li fi nekkoon. moo tax boo déggee ñu naan parents saay ma dégg journaliste yi naan non ànd yi est-ce que couple bi est-ce que ànd bi contre du contre nature ñii nan lañ mën a àndeek ñii ak ñii liñ leen def lépp lépp lenn la. réeróo bi. du ñaar du ñett. léegi nag bi mu amee lu wàll si ci pecc mi ñu gis ni mi ngi am doole ñu infiltre ko wër ko mooy bi ñu wëree Ousmane Sonko waaw ñoom ñëpp nga gis rey ñoo yeeg yooyu xam nga ku ne xam na ni xibaar ya daan jot yëpp da daan wëndeelu après ca présidence mhm. dafa daan xew lañ daan wax lañ daan kii comprendre nga mhm. mais nag problème bi mooy boo delloo ci li Khadim Bamba Diagne wax li mu wax ne Ousmane Sonko moo leen dàq politique maanaam dañoo yaakaaroon ni dañ koo infiltrer fekk ne. moo leen moo leen di jariñoo parce que maîtriser na leen. Ah. laataan. dañoo foog laataan ñoom ñuy. dañ koo infiltrer fekk daf leen a fekk daf leen a piéger ba mu ba ñu génnee ba bàyyi ko. Hmm. boobu la askan wi gën a ànd ak moom. boobu la am maqaamaam. bu dut man bu ma nee diw la muy diw. boobu nga maanaam ñoom bañ ko bawee. boobu nga doon wax ne am na ci koo xam ne da koo jox mairie. Hmm. pour xañ ko leneen. voilà. bañ ko bawee ca la am maqaamaam mën a joxoñ asan ne asan la nit ñi topp asan mhm. parce que daf leen a futti maanaam dafa wane lan mooy système bi dëggantaan parce que bu àndutoon ak ñoom taxaw fële rek mënu leen a xeex wala tey mais biñ jaxasoo ak moom wala bu ñu defoon coalition ba fal ko tey mhm. day doy waar du liggéey léegi nag moo tax yii ngay gis yii yëpp ñuy ànd nga sama nga ñenewu ci Mm-hmm. parce ah, que sa ngañ da ci war a. benn lañ. ñoom conseil leen rek ah, ak ak ak ak ak APR. PDS ak euh, APR <laughs> maanaam alliance boobu loolu. loolu alaaji dix ans ñuy reyante di tojante boobu. mosuñoo rayante. dix ans film lañ nekkoon rek li ci wan li ci kaw nga doon gis. mais dafa am yeneen yuy xew ci suuf yu bokkut ak li ci kaw. seen ànd ku ciy perte. seen ànd ñu ànd ña. après PDS ak APR. ñoom ñu perte ba pare ñoom ñu. non non dama ne ànd non dama ne ànd dem ci système bi moo perte dafa am léegi gis boo comprendre ni système la ak anti système moo fi ne. yaa ngi dégg. Mhm. gisoo gis gisoo fi mu toll nii actuellement. Mhm. gisoo état bi ni ko niñ koy xeexee. Mhm. dañoo amoon seen lépp seen i média seen i journal seen lépp la ñu amoon. yaa ngi dégg. moo tax tey jii fi mu toll bi yëf yi daanoo nga gis yuuxu yi di jóg fu ne am na ñu bari ñoo xamante ni jàppoon nga ñii ñii kat mooy lool dañoo am seen lépp. Hmm. seen société civile ak lépp la ñam. ok système. Hmm. dañoo am seen lépp la ñam. seen i intellectuel yoo xamante maanaam lu ñu togg la loo xamante ni. Hmm. am seen communication traditionnelle gis nga lii daaneel ko. non moo tax sa waay jàmbaar la Sonko barki Rasul jàmbaar la aussi tamit xam nga benn nit kese mënu ko daaneel jàmbaar la non c'est sérieux mais jàmbaar la mais aussi tamit sooybu yàlla dimbali ko mu ànd ak ay ay gor ay gor pire waaw parce que ñi dañ ñëwoon sax li njëkk wax mooy buy tànn buy tànn parti bi tas lañ njëkk wax waaw xam nga ne Abbas du ko ci bàyyi non non yooyu yëpp ñoo ñëpp doon wax loolu li liñ doon ñu doon wax dañ doon wax loolu mais xamoon nañ ni maanaam yaakaaroon nañ ni sawaay yëf yi du yegg si fii parce que yëf yi pour mu yegg si fii nag il faut que yow nga am benn volonté bi doon leader boo xamante ni bi njiitu ku mat nga mais aussi tamit nga am ay ay gox yoo xamante ni bi mën ngaa ànd ak ñoom ci combat bu mel nii d'accord pour nga mën a réussir lu mel nii waaw yaa ngi dégg mais waaw mais nag laaj bi ma la laaj léegi alaaji waaw il faut mu am tontu. Mhm. muy coali lëngoo PDS ak APR. Mhm. su ma xam nga d' accord léegi boo nee ma perte nañ d' accord. Mhm. mais ci seen ànd dem ci ay législative kan moo ciy gagné ku ciy perte laa loolu. am na xam nga man nekkuma di la ko defal ñaar man lenn laa la ko defal dama ne la benn lañ. mais ñaar ñu ànd lañ. non non du ñu ñaar kenn lañ. ah oui ñoom ak ay parti sociaux ñoom ñëpp benn lañ. liñ tëjanteeg liñ xeex ak benn lañ. d' accord c'est bon. du ñu ñaar. léegi-léegi ñu xiiru kërëb kërëb nax ñu. ñun ñu toog naan eh sa ay temps yi kii ngi jóg di parti sangam non nii billaay ay ruurub kese la. ay hmm. théâtre kese lañ doon def. ok yaa ngi dégg depuis 1960 ba naga ni réew mi ci théâtre bu mag la may. mais man déggoo ñu nekk fi ñun defe ne. mais bii déggoo ñu ne Ablaye Wade kii de dañu ne rek. PDS dem na. te bu fekkee ci élection yi dañu ñëwoon Ablaye Wade. Oh. moo wax nañ jàppale Diomaye. léegi nag loolu moo may hmm. gis nga te gis nga fépp la ñuy am ab tànk. Hmm. mooy léegi nag nan nga war a doxalee foofu laay ñëwee ci décision bi nga xam ni eh, Ousmane Sonko jël na ko. bala nga kii fii doo jëlaale législative kii ah. Amadou Ba ak. Euh, wala ñëpp nga boole Amadou Ba léegi ñëwal benn la te. boole lépp ñoom ñëpp laa la wax ne lenn lañ. <laughs> man maa ngi woon ci ñaari. non non Amadou boole ko ci li nga wax lépp ñoom ñëpp benn lañ. d'accord kon ñëw kii day tuddaat fii lii kii tuddaat fee lee kii tuddaat fii nouveau nuveau kii kee tuddaat fee kee ñu jéem a naxaat askan bi mais lépp lenn li la amuñu problème ñoom ñooñu ñëpp amuñu problème d'accord yaa ngi dégg mhm. mi ngi parce que la preuve euh, ana sawaay xalifa démb ma nga yaa ngi ko fay gis euh, gis nga ni ñu ngi maanaam ñoom ñëpp benn lañ bu c'est que bul sonn ak seeni élève yi ñu formé yëpp benn lañ fii lenn moo fi nekk mu moo tax ma ñëw bëgg a ñëw ci dogal bi nga xam ne moom gis nga dogal bi mm-hmm. xam nga Sonko dafa wax wax joo xamante ni maanaam li mu leen wax dafa yor maanaam doonte nag euh, maître Moussa Diop génn na jéem a salteel wax ji euh, mm-hmm. defee ko di façon boo xamante ni bi am na ñu ko weddi sax euh, waaw waaw am na ñu génn ba wax ne booy waxit nga rendre yëf yi ni mu demee fidèlement mooy li gën a rafet mm-hmm. parce que ni nga ko waxee demeewu ni Mm-hmm. demeewut ni noonu la ko waxee maanaam soxlaatuma leen mm-hmm. kërëb kërëb élection yi rek a taxaw élection yi waaw xam nga loolu mooy mm-hmm. wax yoo xamante ne bii wax waxi nit ba ma jotee vidéo bi ci Assane laa ne ko mais togal leader njiit da ngay mat njiit bu dee jël décision jotee nga jël décision nga expliquer nit ñi nag parce que Sonko dafa am jaar-jaar boo xamante ni moom lay mën a teg ci table ji buy mën a wéral wax jim lay wax muy jaar-jaar ban mooy passé bi nga xamante ni moom la defoon nag gaa yi parce que loolu yëpp da ngay defee ne euh, lu amut solo la maanaam mais tey loolu dafa am solo parce que lu muy ñëw teg ko la loo xamante ni bii tey képp ku jàkkaarloog moom mu jël dogal bii mu jël mu wax la lii doo ko dindi. Mhm. pour mu mën a sécuriser ay mbiram. moo tax ma ne la parensaay nit ki day xeex ci benn campagne fekk ne li muy def ci campagne boobu du ka du du loolu. mais dafa am leneen lu mu gis lu gën a sori loo xam ne moom lay préparer ni mu war a demee parce que man je sais jàpp naa ni Ousmane Sonko jàppoon na ni ñii ñëpp dinañ ko war. mais dafa bëgg a utiliser wor gi ñu ko war. tey jii pour convaincre ko ay nit ngir mën a am li mu bëgg. xam naa comprendre parce que jamono ji ñu toll nii tey ñëw na teg na loolu ci taabal ji. Mhm. indi na leen problème u temps parce que temps amut. waaw du dëkk dafa xat. dafa xat pour coalition bi ñëpp mën a toog di wax ak di def nii ak di def naa yaa ngi dégg loolu di benn ñaareel bi mu indil leen jaar-jaaram ak parti yi nga xamante àndoon naag ñoom législative yi législative yi fi mujj gis nga mujj gi ñu waa PDS ak yëpp wëndeelu nañ jëm fële mais lu ngeen posé question ngeen ne waa lu tax PDS bokkoon ci victoire bi ba noppi wëlbatiku tey dem di ànd ak APR loolu ma jaaxal loolu ma jaaxal ah waaw moo lay wan ne dafa infiltré woon yëf yi rek waaw hmm. dafa duggoon rek waaye hmm. bi mu duggee après bi yëf yi sottee it am na ay blocage yoo xam ne peut-être waxuñu ko moo leen permettre ñu dem fële parce que am na yoo xamante ni bii jàppoon nañ ni yëf yi noonu lay demee ci hmm. Sonko bi muy wax fële daf ne nekkuñu fi di séddoo maanaam daf leen ko wax te boobu voté guñu sax mu ne leen séddoo wuñ séddoo du fi am est comprendre nga danañ jox ay nit kii dem nañ ba yëg nii seen affaire yi nañ ko jàppee woon doxut moo tax nag ñoom ñëpp nag tey après les élections ak bu ñu jubee ci élections ñoom ñëpp dinañ taxaw ngir fas yéenee xeex bloc bi nga xam ni moo fi ne moo tax may wax ne hmm. li Assane wax dafa am solo hmm. Eh, te nga fàttali ni Cheikh sëñ Cheikh Thioro da ko wax mhm. gis nga waa Pastef yi mhm. il faut que ñu gën a wuyoo tur wi nga xam ne moom lañ tudd muy mhm. Pastef am Pastef waaw il faut ñu am Pastef bu baax bés bu ñu yaakaaree ni gis nga xam ne affaire bi nan la mel yonent bi sallallahu alayhi wasallam ganee wutoon ab bataay ah, benn xeex ah, nit ñi di xëccoo cër yi cër yi waaw gars yi jaar ca gannaaw ñëwaat éliminer leen ci moment boobu lañ toll. moment bi gis nga. Hmm. il faut être vigilant. bañ a nekk di jéem a xëccooy cër. Hmm. li doonoon sa objectif. il faut que nga bañ a perdre yëf yi de vue maanaam nga xam ne lii mooy sa objectif nga focus ci loolu. xam nga lan mooy sa objectif. Hmm. mooy réew mi. yaa ngi dégg. jag. tey nag mënoo xeex ba jox nit post président joxoo ko lu mu liggéeyee. ci pour mu mën a yegg yow sa liggéey bi nga xamante ni bii moom nga ko mën a jox. Mhm. mbir yi jeexagul tey jii nga war a gën a taxaw te boo taxawee ba pare ba jox ko ko ba pare nga encadré li nga xamante ni bii mooy liggéey bi fas yéene parce que ñi doon yàq. Mhm. duñu ñu fi jóg. si parce que dafa am lu bari lu yàqu moo tax fi mu toll ni jooy yi bari ba ñëpp xam nga ñi daawul jooy. ñi mhm. la daan wax réew mi neex na dëkk bi dafa daan metti ba noppi. am ñoo xamante ni bi dañ lay wax ne la dëkk bi méttiwu dëkk bi mm-hmm. kii na mm-hmm. yow ngay génn doo am cent franc yoo jëndee kafe naan waa mais mais dëkk bi ñuy wax naan non dëkk bi macha allah gars yi kii borom teraanga yi borom lii borom li ñu xëy xëy borom teraanga yooyu yëpp bloqué ñooñu jóg naan dëkk bi naqari na mm-hmm. yow xamal ni boo xoolee tuuti rek entre lire entre les lignes xamal ni ñiy yuuxu wute naak ñi daan yuuxu lan moo tax ñuy yuuxu c'est parce que gars yi ñu ngi ci liggéey bu am solo moo waral yuuxu yi ñu daawut yuuxu di yuuxu tey mm-hmm. il faut ñu xam ni yenn yuuxu yi moo jig réew mi mm-hmm. yenn yuuxu yi ye waaw moo jig réew mi parce que tey jii ñi daan pasar pasaree alal ji ñu naan diw nii diw nii diw nii ñu lay di tagg fu ne tey jii defe naa ni El boo ko taggoon fii ñemewut a yëkkati alal di la ko jox xalaatoo ko sax yow mm-hmm. est-ce que comprendre la amul benn ministre bu fi ñemee jël alal di pasar pasaree ah, kenn xalaatu ko loolu tàmbalik développement fala doore mm-hmm. dëgg la donc comprendre ah, réew mi yëpp nee nañ dañoo nay di nee nañ nguur gu nay a ngi nii nee nañ mm-hmm. c'est bien parce que ñi daan tàllal ñoo taxaw ne nit ñi dañoo nay ñi daan tàllal te nag looleen jox ñu lekk ko du ñu dugal ko fii te ki ñooy taxaw ne dangaa nay donc dañoo nay c'est mm-hmm. fekk ñu ngi ci dañoo nay léegi tey réew mi incha allah rab rabbi yenn point yu bari daal di décanté wu. tabarkalla mhm. nañ leen jox li ngeen laaj la. la ñele moom ak ñu mën a tudd. Mhm. tur ñu mën a soppi. Mhm. nañ xam ni. ñoom système la rek.